assalamu asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet yi Senfootball TV nuyu naa leen bu baax jeex leen di am mbégte saa su ne defal leen vidéo euh, pour ñi nga xamante ne chaîne bi leen wax welcome bienvenue abonné leen cliquer leen ci cloche boobu ngeen gis vidéo bu ñu dugal ngeen mën ko seetaan bu leen fàtte tamit vidéo c'est très important mbokk internet yi dem fële ci Espagne information bu rëy rëy lañu ñu am euh, taskatu xibaar bi ñuy wax ast xam donc moo ñu xamal ne euh, lii di waa Bayern Munich après ñu jënd Sadio Mané dañoo bëgg a jël kii di Cristiano Ronaldo pour mën a remplacer kii di euh, Lewandowski bi xamante day dem du côté de Barcelone bu fekkee dafay ne parce que un an de contrat moo ko dese mais vu que Polonais bi dafa wax carrément conférence de presse man moom gisatuma nan laay def ba toog euh, du côté de Bayern vu que def na fa plus de sept ans xam dafa yàggul lool depuis mu jóge def moom nag gis nañ dafa war a changer carrément coûte que coûte dafa bëgg a changer ça veut aussi tamit gis na opportunité bu mënu ko ñàkk Cristiano Ronaldo aussi tamit de l'autre côté gis ngeen ne mooy meilleur buteur histoire Ligue des Champions donc te Manchester United disputé Ligue des Champions donc Cristiano Ronaldo bëggul toog foofu te ku xam Cristiano record rek neex foog mu def ay record te nekk na benn jour bu xamante ne euh, voilà gis ngeen li mu def Manchester Manchester United avant avec euh, Ferguson euh, jël fa championnat Ligue des Champions dem Real Madrid gis ngeen ni mu fa def xam nga euh, jël na fa tamit ligue des champions Juventus mu jël fa championnat dem benn Bayern donc à côté de Sadio Mané bu nekkee sa wala Gnabry ak kii di euh, Leroy Sané bi non beneen affaire la kon loolu attaque même si euh, Cristiano Ronaldo si carrière am instant yi nii nekkatul si si digg mais hygiène de vie bi mu am rek ak ni muy liggéeyee rek kooku am attaquant voilà déjà que il fait partie des meilleurs buteurs en ligue déjà pour âge am ak ministère ni mu demee donc man pour man a côté de euh, ki sa kii euh, Sadio Mané pour man Sadio Mané i da siy jàng sax xam Sadio Mané jamono bi jàng na jàng na ba weesu dañ ne man dama kii Valérie Dum wax ne euh, kii di Sadio Mané mooy kii Ronaldo bu Liverpool ñu ne ko moo tax loolu mu ne liggéey bi hygiène de vie bi toppatoo bi mu toppatoo boppam xam nga kii Ronaldo Ferna kii Ferna kamay fàttali Ferdinand ancien défenseur bu Manchester United da doon wax ne un jour bu ñu soog a xam kii Ronaldo mu ngi soog a ñëw muy soo commencé à entraîner dafa mën sa ñëw si si maison am gaari otam xool si kër gi mu gis ay nit ñu bëri mu ne xamoon naa ko gars yi boy booy dama bëgg caaxaan quoi waaye bu mu duggee si biir nag te taxaw ñu ñëpp kii mooy xool li muy lekk kii mooy xool li muy def ñoo ñëpp pour que mu performant rek la si la xamee ne noonu kii mën na dem pour vous dire que ne Sadio Mané la même chose fii la kii boy boy Konaté boobu nekk Ibrahima Konaté di wax ne Sadio Mané dañ koy jox juge sax mu ne wuu Sadio doy na sëkk donc pour man un duo Sadio Mané kii di ak Christian ça peut être extraordinaire même si man je pense que trois attaquants laa gën a yaakaar c'est juste que pour mu toog Manchester dina doy waar vu que entraîneur bu bees bi fa nekk ay booy la bëgg a yor entraîneur lañ mooy ki ne woon Ajax noonu xam donc loolu gën a ma yor yaakaar si ñoom Sancho di jëm leen a ah, xamal bi nekk si ñoom di nelaw mu yegg yee benn Rashford bi xamante ne yaakaar nañ ko xam nga donc bon moo tax. mën na nekk benn information bu xamante ne aussi tamit mën nañ ko gëm xaw ma nag ñoo noo leen ko gisee yéen euh, sama internet ci commentaire ku si nekk mën na wax xalaatam ak gis-gisam euh, par rapport ak Cristiano Ronaldo côté de Bayern Munich mbokk yi li mu nekkoon xibaar bi maa leen di jaajëfal di wax ba beneen sur Senfootball TV